léegi ba mu demee nag man sama xol bu naqari ak sama xol bu tàng ak ni ma toroxalee abandonné moom moo tax ma ne ko waa léegi yow kon ni nga ma takkoon nii takk suuf la léegi man dinaa génn siiwal ko mu ne ma bis boo ko siiwalee dinaa siiwal dinaa la siiwal yow fekk moom ba may takk man ak moom dañ doon def appel vidéo tout le temps dañuy def appel vidéo suñ defee appel vidéo moom mii day nuyu dafay simmeeku ba set mais yow am nga vidéo yu simmeekoo non yoruma ko parce que man mm, jubluma ci pour def lu bon mm. du ma ko yor moom mii moo ko yor moom moo yor sama bos te moom yor na ordinateur yor aussi téléphone waaw kon neen maa ngi nekk jabaram yaa ngi nekk jabaram maa ngi nekk jabaram mm-hmm. moom mu téye ko daf ci jublu lu bon moo tax mu téye loolu parce que kenn du nekkal sa jabar di ko di ko di ko enregistré di ko screen record loolu mënul nekk man mii fu fu ma waxee ne screen record naa la moment yi nii du ma ko gëm du ma ko gëm parce que dama naan boobu sama sama jëkkër la donc lu ñu def sama diggante man ak moom war naa yem sama diggante man ak moom warul génn ci biti mais ba tey génneewul dara de foofu laay waxee yow ba tey non wax de yow rek wax ne moo ko yor nee na da koy génnee ba tey moom waxul dara maanaam yow rek yaay wax foofu laay waxee yow nga xam boo ma na boo ma dégloo di nga xam li may wax dama moom daf ne ko kon ma génnee la kon ma génnee la ma ne ko non doo ma génnee parce man yaakaaru ma woon ne moom yor na yor na dara ci man da yor na dara ci man lu bon loolu laay yaakaaroon léegi mu ne bu ma siiwal mariage bi te bu ma wax dara ci moom naa ne patt jàpp sama ñaambur continuer sama vie dund sama vie dem sama yoon moom mu dem yoonam ma ne ko lool noonu du ma ko defee noonu dinaa siiwal mariage ba ñëpp yëg ko ma siiwal mariage ba ñëpp yëg ko mu ne ma man maa ngi dem mu chantage ma mu ne ma demal nga xool sa bopp si sur whatsapp whatsapp léegi am na nooy waaye nit ñi sur forme benn vidéo boo koy yónnee mu xool ko benn yoon dootu ko mën a xoolaat WhatsApp léegi day def noonu wala. waaw FMR FM kii waaw. waaw léegi waaw kay léegi moom moo ma koy yónnee ma xool sama bopp gis sama bopp ma ne ko yaw yaa bon yow da nga filmer sa jabar kon te yëguma ma ne yow ba may nekk ak yow kon ñuy dund moment yi da nga koo da nga koo. tapoter leen écran bi gars yi tapoter leen bi mu dem direction un million. zem tapoter leen écran bi. mu ne ma waaw boo siiwalee mariage bi rek ma génnee ko ma ne ko ok man dinaa dem porter plainte ma dem porter plainte woo police ma ma report ko ma porter ko plainte ba ma ko porter plainte ma ne ko porter naa la plainte bis bu ma gisee vidéo yi circuler dinaa la dina dinañ la jël si moom mu woo sama frère bu ma bokkal ndey ak baay wax ak moom li muy wax ak moom ba pare ñoom ñaar ñu waxtaan lu yàgg mu jël vidéo yónnee ko sama frère bi wan ko ko mu xool ko benn yoo xoolaati ko moom moo ko tey jii sama frère boobu mën na ma seede moom dafa am lu muy xool ak lu muy seet man fu mu ne sama der yàqu na ba pare man jaratuma dara si dëkk bi man moo tax ma génn di wax ba tey mais moom sama frère bi moom du génn di wax mais wallahi la azim moom gis na ko man gis naa vidéo yi moom gis na ko loolu moo tax ma ne dafa yor. tapoté leen écran bi dama cee teg sama bët moo tax. ok léegi vidéo bi daal maanaam yow rek yaa ko maanaam yow yaa ko gis. yow yaa ko siiwalal sa bopp dama ko gis benn yoon gisaatuma ko. ñun moom gisuñu dara gisuñu vidéo gisuñu say intime wax dëgg yàlla yow yaa gis loolu yow yaa ko wax. voilà gisagoo leen dara mais man maa ko gis. comme man léegi beneen bi ni waxaat mooy.